salaamualeykum Bagadaji Info TV maa ngi nuyu ñëpp di leen siyaare képp kuy seetaan Bagadaji Info TV maa ngi lay siyaare rawat na waa diaspora maa ngi leen bëggee di leen saaw di leen naan bu leen fàtte ngeen abonné suñu chaîne Bagadaji Info TV muy TikTok Instagram Twitter Facebook euh, tey dañoo ñëw jéegun jéegun dëkk bu mag la biir Mbuluf macha allah dëkk bi euh, Mfansu boojan yaayam fii la jóge moom mu yaroo fii si kanam moom la ñuy xaar nii sax parce que dafa war a ñëw moom la ñuy xaar nii waaye histoire teen bii laa ñëw pour laajte ko parce que daan nañ dégg lu bari bari bari bari bari histoire teen bi teen bi avant ñuy dem si teen bi damay nuyu sama tonton bi d'abord salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ça va tonton. sant yàlla bu baax a baax. yaa ngi am jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. tur bi naka la. maa ngi tudd Lamine Jemme. Lamine Jemme. Mhm. merci Lamine Jemme ñu ngi lay béggee nag mhm. dila la siyaare bu baax. lamin dama bëgg a nga nettali ma histoire teen bi tuuti parce que daan nañu dégg sama maam Fodé Kazali bu bu mu nekkee fii. ñu koy waa teen bi teen bu mag mais le nom teen bu mag mooy Kolomba Socé en même temps ñoom joolaay tamit ñoom Kolomba lañ koy wax léegi boo duggee si sa boo bindee jéegun da ngay gis jéegun Kolomba boo déggee jéegun Kolomba a cause de teen bi moo tax ñu ne jéegun Kolomba sëñ bi dama bëgg nga expliquer ma tuuti si teen bi yow li nga jot a xam dara daal ñun daan nañ dégg si Ahmad Kazali am na seen benn xalifa bu tudd Ahmad Kazali samay maam yi ñëw nañ fii ak samay tonton yi ñëw nañ fii ma dégg si audio mu naan teen bi teen bu baax la ndox la boo xamante ni day arnit nit di faj aajo nga am soxla boo ñëwee jéegul avant ngay dem defal la tu nga ñëw teen bi nga root nga yóbbu ndox bi en tout cas ma daal man dama koy yóbbu. mais sëñ bi dama bëgg nga expliquer ma tuuti si teen bi. waaw li nga wax moom euh, dëgg la ñun euh, teen bii ngay gis nii dañ koy wax naan euh, teen soo gisee ñuy wax kolomba teen bi moo tax kolong si soose mooy teen kolomba mooy teen bu rëy si lu ma xam sama xam-xam bu gàtt bokk lu ma laajte ñu xam am na ñeneen ñi nga xam ne peut-être soo leen laajee dinañu gën a xam ñi nga xam ne xëy na suñu mag yi xam ne juddoo nañ fi yaroo nañ fi ñoom gën nañ xam mais ñun si lu ñu laaj si lu ñu wax maanaam mooy même suñu papa suñu papa yi nga xam ne tey jii ñoom fi nekkoon gën nañu àddina yàlla na suuf sedd seen kaw ñoom yàgg nañ leen laaj teen bi ku ko gas ñoom ñii seen bopp nee nañ ñoom sax bu ñu juddoo teen bi fii lañ ko fekk fii lañ ko fekk ak ñi leen mag yëpp ñu ne teen bi fii lañ ko fekk kenn mënul wax ne teeñ bi buñ koy gas man fekkee naa ko wala diw ñoo ko gas wala diw moo ko gas koo laaj ma la teeñ bi bu ma juddoo fii lañ ko fekk léegi la teen bi wàcc nii lii dañ ko si yokkoon lii dañ ko si yokk fii la yemoon fii la yemoon jarul sax baat da ngay ñëw rek tànk dem jarul tànk dem mais gan bu ñëw bu daan ñëw te tàgguwul soo ñëwee nga root du génn du dafa am suñu paa yi ak seeni xam-xam ñoom ñooy ñëw wax fii ñu mun la li si bi mun la bàyyi donc du teen boo xam ne nit moo jóg rek gas ko noonu dafa nekk teen boo xam ne dafa am wërsëg ndoxu bayre la ñu bari jigéen ñi ba tey jii ku ñëw fii te tànqoo si teen bi sa ñëw amul njëriñ jëpp diir ñun sangu nañ si suñu doom yi sang nañ si suñu sët yi sang nañ si ku fi ñëw sooy dem da ngay ñëw root soo demee nga sangu si jox sa sati sangu si teenu bayre la wax dëgg yàlla loolu daal laa la si mën a wax si gàttal. macha allah parce que même man dégg naa ko teen bayre la teen bu baax la parce que maa ngi fàtt maa ngi fàttaliku 2019 ñoom Bamatar bu ñu ñëw fii ak Ousmane suñu maam Kazali mhm. fekkee nañ ko fii ma déglu audio mhm. mu teen bi bu autant bu yàkkoon. bu amoon problème sax dañuy woote Bagadaji ba Kalifa ne kenn wala des fois moom muy ñëw bu teewee teen bi pour ñu pour ñu defar ko vite fait day dañ koy defar en même temps ndox bi day gaaw génn. mooy luy parce que loolu de dégg naa ko tey fii sax ñu ne ndox bi far far day ne par côté yi ko daal ndox day génn. en même temps kon li nga wax ni dama koy traduire société pour gars yi xam nga ñu xam te ni dégguñu olof tuuti. mbadi maninkola ko ñu kolonyi i toliya tarajani bari tol mala miya sin koma te amala dindi yake jamma fona atata nu militaire yalla yon banto yon bantoliya moynu kolonyi ika fodi ka jali to foji ando miya fo wo mi tol fo wo ka nyaay fodi ka jali jela bira wata kambandi parce que pe pa bu don wax baka jali mo muna gis na am kazali mo ne am kazali bu mu don ñëw fii moom gis na ko bu fekkee ne buy ñëw day ànd ak fas bu weex lay andi mu ne fii teen bi xaw ma ndax am da koo fekkee fii xaw ma ndax fekk eh, da koo fekk mu ñu gas teen bi wala fekkee ko fi mais en tout ten bi def na si dara loo xamante ni waa Jaakunda bu ñu ñëwee ten bi bu yàqoo bu ñu woo waa Jaakunda bu taxawee rek teen bi dañ koy defar vite fait parce que daan naa dégg sax ñu ne xaw ma comme maa bu ñu amee set set bu bees mhm. bu ñëwee day ñëw fii ñu sangu ko mhm. buñ ko sang après mooy aar bi moo koy may jàmm mhm. mu mun a bokk si famille bi loolu yëpp maa ngi siy bàyyi xel si audio bi loolu yëpp wax na ko foofu léegi mbaɗi mbaɗi ko aliyo jela ko ni momi nata jang maño mati ni nata futulen sate ko maño miti ike kam na jere jobi je yeku ban ni mambo en sate kono ni nata en jobi jio muka song andu itollu ikanali kopoda mata yana ya birek ni ya birek ya tel hajol bar ni mulun tawndi ni nare jobi jang jom ga son bar fo mo ne bo famiyo kana nana aw kolon isabar nyin sa jobi apra mare jobi anda teo kalamtale me aman dol kalamta ay min kalamta ay wolfo kolonyi ala barko bala ni min nare jegun isi futano jelena ya jobi imuka mo imuka wafi ikamor swalal loolu laa doon dafa ne teen bi ndox bi jaayuñu ko ku ñëw jéegul wala nga ñëw soo xam conke si na ay besir ku ñëw côté bi daal boo mënee ñëw dëkk bi fii nga ñëw tànk eh, ndox bi baax na si parce que ndox bi ndox ndox la boo xamante ni dafa am njëriñ en tout cas waa dëkk bi ku nekk gis na si résultat en tout ko xamante ni gis na résultat xam nga loolu fexeel la tu nga dem parce que xam nga ñaan ñaan dañoo da nga koy jënd mhm. jënd bi cela veut dire da ngay fay sa paas di dem jaral la ko nga dem fen pour jëli ko foofu mhm. a ah, moo tam man ma ñëw fii parce que man seet Fodé Kazali la en tout cas tey man su may dem incha allah ndo bi peut être sax mun naa de ma tan ko ma sang ko fii balaa may dem xëy na lu barkeel boobu sax mooy gën a ëpp. ndox mi daal jaayuñu ko. waaw kenn du ko jaay. da ñëw root nu la neexee yow yaa xam le nombre de soow nga xam nombre lu bëri nga dem. mais que doog dërëm kenn du ko jaay ñun lu ñuy bëgg rek nit ki tekki loolu la suñu maam yi wax loolu si teen bi waaw ku si ñëw yaatal ko teral ko mu ñëw root sangu mu mun a barke teen bi du musa waw bii ngay gis nii du musa wow fii Colombo fii yëpp teen yëpp wow nañu mais bii du musa wow moo tax te ñun duñ koy fàtte xam na ay temps yoo xam ne bu yàggee dañuy ñëw génnee fi sarax ñaan def yëpp teen bi parce que soo ko fàttee rek ku ci nekk da nga koy gis ñii di def examen ñii di def concours yi lépp fii ngay ñëw waaw donc teen bi daal mi ngi nii. en tout cas boo xoolee dëkk bi ak a bëri autorité ñu xamante ne dañoo am place bu mag a mag a mag a mag fii dëkk bi fii kon les ku mën a ñëw fii ñëwal nga tànk fii foo dee dafa liggéey ak waa dëkk bi dañoo liggéey fii. boo demee Bakadaay sax suñu teen yi foofu ñu ne xaw ma seen maam yi ñoo ñoo àndogee pour gas ko foofu en tout teen bi teen boobu teen ma sama kër la nekk mm-hmm. teen boobu moo gën a mag teen foofu Bakadaay mais ba tey da ngay root bu la neexee kon moom teen bi mun naa en tout cas teen bi moo ko mag teen bi moo ko mag kon les man daal maa ngi ñoo root teen bi moom suñu papati papa mamati maam yi yëpp kenn mënu la wax ni teen bi man fekke naa ko buñ koy gas. merci papa naa jube na fi laa ko fekk jërëjëf. dafal sa dernier mot. waaw maanaam yen ni ñëw nii képp koo xam ne dégg na waxtu dégg na kaddu bi boo muñee ñëw comme ni ñuy wax rek sooy ut da ngay da jënd da ko jaral ten baa ngi nii bii la ñuy wax teenu kolomba kolomba nga ñëw root si barkeelu si sangu sa aajo faju waaw yal nañu yàlla defal jàmm yàlla may ñu wér ak wér la yaakaar bu ngeen am ba nit ñi di ñëw ba fii di si ut ndox yàlla bu yaakaar tas yaakaar bu ngeen ya am ba ñëw di fi root di fi sangu ak yéen ak seen i doom seen i sët yàlla bu yaakaar tas yal na yàlla faj aajo yëpp waaw yal na yàlla faj aajo yëpp yal nañu yàlla defal jàmm macha allah rahmatulahi taala wa barakaatu merci papa kontaan nañ momo be kontaan na kafar ga kana ñinali abonné Bagdad Info TV inshallah rabbi euh, samedi na la mbakaranta ba Gambie Merci.